Hello guys, welcome back to Sen Sport 221, the best sport news channel. Edouard Mendy l'international sénégalais tey ji moo save Chelsea football club te match bi nga xamante ni xewoon na seen diggante ak Red Sea di Liverpool. Liverpool ak Chelsea football club tey ji moo doon derby bi xewoon foofu la ci Angleterre wala ñaareelu derby bi ndax Man City kat tey dafa xëyee al ak ñi di waa Arsenal duma leen duma yu méttee métti waaye nag ñii di Chelsea football club ñoom itam ñëw daal di match seen diggante ak Liverpool. Liverpool nag nekk équipe boo xamante ne tey jii xar kanam gi mu wane gëj nañ ko gis ci kanam ci moom dafa attaqué daanaka mën nañu wax match bi yëpp. waaye Chelsea Football Club ñoom match bi ci njëlbeen yomboon na ci ñoom ndax ñoo njëkk a dugal Kai Havertz moo dugal bii bu njëkk ci jogante googu waaye nag Red si euh, mujjee égaliser ci benn penalty boo xamante ni kii di Mohamed Salah moo ko dal di dugal. ci benn li nga xamante ni mooy faute de main boo xamante ni kii di Reece James moo ko def ñii di euh, Red si daal di égaliser ñu gis nag second half bi muy deuxième mi bi métti lool ci Blues yi waaye ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy mooy ki nga xamante ne mën nañu wax ne moo leen sauvé ndax lu toll ci juróom-benn arrêt la dal di def maanaam ñetti juróom-benn arrêté yoo xamante ne benn bu ci nekk rek mën nañoo wax ne bii la woon six save moom la Edouard Mendy def ci in a single game loolu mosul am di depuis mu ñëw Chelsea football club mosul am lu toll ci six save maanaam juróom-benn arrêté ci benn mat tey ji lay soog a xew kon tey ji am na. Euh, adversaire boo xamante ni gëj na am xar kanam bu ni mel voilà comme ni ñu leen ko waxee Reds dañu attaqué match bi yëpp mais taxul ñu mën a gagné match boobu ndax kii di Spider bi moo tax mooy Edouard Mendy moo sauvé ñi nga xamante ni ñoo di Blues comme ni leen ko waxe benen derby bi mu ngi doxone diggante Arsenal ak Man City Arsenal mom tay ji Man City daf ko daldi juromal juromi ball la ko daldi di mu nek nak lu doy war ndax Arsenal depuis championnat bi tambali ba légui waxuma la dóor kenn mais benn bi sax mënu ko marqué lu doy war la lu doy war Arsenal jamono yi ñuy waxi ak yeen mu ngi ci sofu table bi manam championnat bu fi yemon mom deuxième division la jëm. mbirum Kylian Mbappé Kylian Mbappé bokku na ci groupe bi nga xamanteni war nañu jouer ci dimanche ji wala ci match bi wara xew digënté Paris Saint-Germain ak Stade Reims kayiti xibaar yu bari nag doon xamle ne Real Madrid dañoo sori woon ci wax ji waaye waxoon nañ la fi démb ne Paris Saint-Germain accepté guñ bi Real Madrid mujjee def léegi nag Real nag ñoom daal dinañuy wax li nga xamante ne mooy seen kàddu gu mujj nee nañu Paris Saint-Germain bu dee ñu li nga xamante ni mooy seen offre boobu ba weekend bi balaa weekend bii di jeex ñoom dinañu dellu gi naaw ci li nga xamante mooy offre boobu dinañuy jëlaat seen xaalis ndànk dem toog xaar ba diwan ñu signé ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé for loolu la Real Madrid wax kon jamono yi carte gi mu ngi ci loxo Paris saint ñoom nag dañ doon xaar Real di yokk seen loxo waa Real ñoom nañu seen euh, kàddu gu mujj nee nañu ñoom duñ yokkaat dara te offre bi ñu mujjee teg bu dee Paris Saint-Germain accepté wuñu ko ba weekend bii ñu nekk jeex ñoom dinañu dal di génn ci risque bi dal di dem toog seen kër xaar ba ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé contrat jeex su ko defee ñu dal di koy signé waaye Mbappé moom ak lu mën a xew moom euh, jamono yi daal dinañ koy boole ci groupe bi nga xamante ni Paris Saint-Germain war nañu ko euh, am seen match bi war a dox seen diggante ak Stade de Reims ki nga xamante ni mooy Lionel Messi moom itam bokk na ci ak Neymar kon ñoom ñett ñëpp bokk nañ ci squad boobu euh, Paris Saint-Germain war a jouer ak ñi di waa Stade de Reims ci weekend bii. lii nag du jël benn yoon Paris Saint-Germain di am problème ak seen joueur boo xamante ni bëgg na dem buñ sukkas na ko ci kayiti xibaar bi ki nga xamante ni mooy ancien agent wu kii di Marco Verratti ñu koy wax Donato De Campli nee na moom ci atum 2017 bi nga xamante ni Barcelone dañoo bëggoon a signé ki nga xamante ni mooy Marco Verratti jële ko Paris Saint-Germain moom nee na Paris Saint-Germain dañoo bañoon waaye yemuñ ci dañu ko menacé woon sax moom moom kii di euh, agent wu kii di Marco Verratti nee na. Paris Saint-Germain dañoo chantage woon joueur am bii di Verratti ak moom ñoom ñaar ñëpp dañ leen chantage naka noonu ki nga xamante ne mooy Nasser Al Khelaifi moom itam daal di koy menacé ci loolu nga xamante euh, mooy euh, négociation yooyu waroon dox diggante Barcelone ak moom. xamle woon ne carrément ne ñoom pare wuñu ngir jaay ki nga xamante ne mooy Marco Verratti waaye yemuñ ci tegal ko ay menaces naka noonu ay chantage moom ak joueur bi yëpp ba nee na sax ki nga xamante ne mooy Marco Verratti dafa mujjee accepté continuer jouer foofu nga xamante mooy Paris Saint-Germain ngir rek bañ a am problème. kon ñii di Paris saint mën nañu wax na ñoom gorewuñ ak Verratti la mu fa def yépp bu dee li agent bi wax dëgg la lu ni mel moo nar a xewaat seen diggante ak ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé jiraat Piqué moom nag compagnie bii nga xamante ne moom la ñuy wax Cosmos nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum wane ay match moom nag jamono yi bu ñu ci kayiti xibaar yi ñoo dal di jënd li nga xamante ne mooy droit télévisé foofu nga xamante ni mooy ca Espagne ngir wane Ligue 1 bi ak Ligue de française kayiti xibaar yi xam la nañu ne compagnie Gérard Piqué bi jamono ñoo ko daal di jënd bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi nag ñu ngi def lépp lu ñu mën ba nga xamante ni dinañ mën a matal mbir yi ba mën a wane li nga xamante ne mooy match bi njëkk bi nga xamante ni sax Lionel Messi war na ko jouer ak Paris Saint-Germain kon Gérard Piqué compagnie boobu di Cosmos ñoom ñoo am li nga xamante ne mooy droit ngir euh, diviser li nga xamante ni mooy Ligue bi foofu nga xamante ne mooy ca Espagne. Barcelone ñoom nag jamono yi xibaar bu neex la ñu am wala boog entraîneur bi nga xamante ne mooy Ronald Koeman ndax kat ay joueur yoo xamante ni dañoo euh, amoon blessure ñu gis ne ñoom ñëpp euh, dellusiwaat nañu bokk na ci ki nga xamante ne mooy kii di Marc-André Ter Stegen Umtiti Coutinho ak ki nga xamante ne mooy Mingueza ak sax Miralem Pjanic maanaam lu toll ci juróomi joueur ñoom ñëpp dellusiwaat nañu rawatina seen gardien bii nga xamante mooy Marc-André ter ak Coutinho ñoom juróom ñëpp daal dinañuy dellu si gannaaw bi nga xamee Barcelone ñu ngi waajal match bi war dox seen diggante ak Getafe boobu ni suba lay doon ci dimanche ji comme ni ñu ko waxee juróomi joueur dellu nañu waaye nag mu am xibaar bu naqari ndax ki nga xamante mooy Gérard Piqué comme ni ñu ko waxee Piqué dafa gaañu Eric Garcia dañ ko suspendre Pedro Pedri moom jamono yi mu ngi ci vacances maanaam mu ngee noppalu jamono yi kon juróomi joueurs yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci euh, ñoo gaañu woon ñoo dellu waat comme ni ñu leen ko waxee ki ci gën a ràññeeku di Coutinho ak kii di Marc André Ter Stegen ni ki suba lay doon ci match bi war a dox diggante Barcelone ak Getafe bu nga xamante ne mooy Kurzuma Kurzuma bi nga xamante ne joueur Chelsea la woon xam nga ay fan ci ginnaaw doon nañu leen xamal ne West dañu ko bëgg moom nag jamono dal dinañ def li nga xamante ne mooy visite ba signé na officialisé nañu transfert boobu jamono yi ñuy trente million d'euros mooy li nga xamante ni West Ham dal dina koy fay ci boobu le bu ñu xoolee nag ñaari transfert yi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp na ñoo gën am doole bokk ci Europe ci ran ji bokk na ci Cristiano Ronaldo ak Romelu Lukaku ndax li tax mooy ñaari joueurs yi ngeen di gis muy Cristiano Ronaldo ak Romelu Lukaku ñoom ñaar ñoo nekkoon jour yi ëpp lu ñu dugal ay bi ci Serie A bu Italie maanaam top scorer yi nga xamante ñoo nekkoon ci Serie A bu Italie ñoom ñaar ñëpp dellu si waat nañ ci ñaar euh, nañu fa ci ay jamono muy Cristiano Ronaldo ak Romelu Lukaku ñoom ñaar ñoo nekkoon meilleur buteur foofu nga xamante ne mooy ci championnat bu Italie dellu si waat nañu fële ca Angleterre loolu waral kayiti xibaar bi xam na ne lii mooy transfert yi gën a am doole bokk foofu la ci Europe Moise Kean mën nañu wax ne moo remplacé Cristiano Ronaldo moom Moise Kean mii nekkoon Everton ñaari at yi ñu weesu xam nga moom ancien joueur Juventus la delluwaat na nag ndax tey jii delluwaat na foofu nga xamante mooy Juventus on loan maanaam dañu ko able waaye nag mu ànd ak li nga xamante ni mooy option d'achat waaw ñii di Juventus dinañu jënd ki nga xamante ni mooy kii di Moise Kean bu saison bii jeexee ndax kat dafa nekk loo xamante ni obligation la ci ñoom buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi kon Moise Kean delluwaat na këram muy Juventus ga nga xam ne fa lañ ko formé avant ñu ko doon jaay fële ca Everton Juventus nag dinañu fayaat lu toll ci 20 millions bu dee dinañu signé ki nga xamante ne mooy Moise Kean bu saison bii jeexee transfert boobu moom officiel na. Barcelone la ñuy delluwaat ki nga xamante ne mooy Emerson moom jamono yi kayiti xibaar dañoo dal di xamle ne Tottenham ñoo ko bëgg. Tottenham nag ñoom li ñu bëgg mooy weccoo ak Barcelone ndax kat dañu bëgg dugal ci deal bi ki nga xamante ne mooy Serge Aurier mu dem Barcelone su ko defee ñu mën a jot ci ki nga xamante ne mooy Emerson Royal waaye Barça dañoo lànk ñoom daal moom maanaam weccoo googu daal ñoom dalu seen xel loolu waral ba kayiti xibaar yi xam la nañu ne kon Tottenham seen deal boobu moom du jàll ndax Barça pare wu ñu weccoo ak ñoom Emerson ci ki nga xamante ne mooy Serge Aurier waa ji ngeen di gis nii moom dafa nekk koo xam ne xëy na borom xol bu gaaw la ndax kat barki démb bi ñuy wax ne Cristiano Ronaldo dafa jege ngir dem fële nga xamante ne mooy Manchester City moom dafa mer ba dem jël lakk li nga xamante ne mooy mayo Cristiano Ronaldo xam naa mayoom la. jamono yi nga xamante ne mu ngi woon Manchester City maillot Cristiano Ronaldo lay lakk nii ndax dafa jàpp ne Cristiano Ronaldo warkat la gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi ko doon annoncé foofu la ca Manchester City te transfert boobu la sotteegul woon moom ci xaat moom daaw na daal di daal lakk li nga xamante ne mooy maillot bi ñu teg ci ay waxtu rek Cristiano Ronaldo daal di nekk joueur Manchester United xaw ma ban taxawaay lay am moom waa ji nga xamante ne supporteru Manchester United la gannaaw bi mu lakkee maillot bi ba noppi Thiago Silva moom dafa dal ci kaw Paris Saint-Germain ndax kat moom ci kàddu mi nekk na loo xamante ni xëñ na euh, li ñuy wax dàq ginaar waxaale sa soxla waaye moom ni mu ko waxee sax mooy ne ki nga xamante ni mooy Sergio Ramos mi nga xamante ni kii di ñii di Paris Saint-Germain dañ ko dox ñaari ati contrat moom loolu daf ko défiré ndax nee na moom Sergio Ramos ak moom ñoom ñaar ñoo tolloo ay at maanaam ay morom lañu. te gis ngeen ku ne xam na kii Thiago Silva condition yi mu génnee foofu nga xamante mooy Paris Saint-Germain te koo xamante ne lu ne defal na ko club bi nekk capitaine bi lu ay at yu baree bari waaye moom dañu ko dal di maanaam pousse fexe ba mu génn club bi ndax kat contrat am jeex na te renouvelé wuñu ko ñu daal indi ki nga xamante ne mooy Sergio Ramos daal koy jox ñaari ati contrat Thiago daal nee na moom amul dara lu mu wax loo xam ne da koy wax ngir euh, contre kii di Messi waaye daal kii di euh, Ramos bokk. waaye daal moom dafa jàpp daal mbir mi daal daf ko defiree ndax ñoom ñaari ñëpp bu ñuy xool ñu tolloo ay at